jumaa ji mat na pas-pas yi mat na yow sa yéene mat na yaay doomi Bamba Cheikh Abdoulaat génne seytaane biir Tuuba dootu fa jaar sellal na alxuraan mbégum Bamba yàllaaw génne seytaane biir Tuuba tànkam dootu fa jaar sellal na alxuraan mbégum Cheikh Bamba yàlla asalaamaaleykum mbokki julliti mbokki taalibe yi ah mbokki Touba Argentine yéen a ngi jàkkaarloog seen télévision Touba Argentine TV ah ana lan moo waral jàng yi ngeen dégg léegi bu ngeen ko déggee am na lu seen xel war a dem fan la seen xel di dem muy màggaluk Serigne Abdoul Ahad Mbacké mi nga xamante ne ni moom mooy yaakaari jaam ñi mébétu si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ci alxuraanul karim ci loxol Serigne Abdoul Ahad la ko jaarale ndax kat moo tabax foofe nga xam ne moom la ñuy woowee daaray kaamil fa Touba duy ko alxuraan ba mu fees dell di ko màbb di ko màggal kon loolooy mébétu Serigne Touba adduna di dox di dox di dox ba waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbàkke yi daje fi nga xamante ne ni moom la ñuy woowee Amérique latine fii ci Touba Argentine ñu war taxawal màggalu Serigne Abdoul Ahad Mbàkke ci ndigalal jëwrin ji nga xam ne mooy Serigne Abdoul Abdoulahat Ndiaye kon du ñu def lu dut rek di sàkku ci yéen ñaan di leen ñaanal ndax ni ko jàmbaar ja daan waxee muy Serigne Modou Aminta Fall yaakaari jàmm ñi nga xam ne képp kuy Baye Fall rek référence nga ko def te moom royukaayam moo doon Serigne Abdoulahat Mbacke kon nag Serigne Abdoulahat Mbacke moomu moom la ñu war a defal fii màggal ci tuuba Argentine war a daje le 18 bi nga xam ne mooy ci weeru juillet bi ñu nekk nii muy talaata bi nga xam ne moom la ñu dëgmal di ci woo mboolem mbokki taalibe yi moom mooy Serigne Alaaji Mbay kàddu bu noppee ñu jox ki nga xamante ne nii mooy Alaaji Basel kàddu yi bu Alaaji Basel pare dal di jox ki nga xam ne mooy jëwriñu Serigne Abdou Lahad Mbacke gën koo xam ci sëriñ Abdou Lahad ca fulla ga ak dal ga ak teega kon mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa taala ñu ngi ziare mbokk taalibe yëpp di ziare mbokki jullit yëpp di yëgle bisub màggalub Serigne Abdou Lahad bii ñuy waajal di jégalu rek mbokki taalibe yëpp te di leen fàttali bés bi di talaata bii ñu jëm si ci otel Bawul ñoo ngi ñaan mbokki taalibe yëpp di ko yëgal kilifa diine yi ci dëkk bi yëpp muy murit tiijaan xaadir di ko yëgal Serigne Cheikh Mbacke mi nga xamante ni bii moo fi suñu yaakaar di Serigne Cheikh Mati lay Mbacke ñu koy xoolee Serigne Touba fii ci dëkk bi di ko ko yëgal di ko yëgal bépp jullit di ko yëgal commerçant yëpp suñu mbokki taalibe yëpp ñoo ngi leen ko yëgal. di leen ñaan yàlla ca bis ba ñu ñëw jàppale nu ci bisu màggalub sëriñ Abdou Lahad bii nii ñu fas ko yéene defal ca bis booba ci barke Seydina Mohamed ah ñu ngi jégalu nag li sama nijaay Ablaye Mbaye weex di wax naan mbooloo kenn du ko ñemee das koy miin yàlla daa dogal nag miinuñu mbooloo bu baax waaye ñu ngi jégalu bu baax a baax lépp lu ci dëng na ci ñun la waaye defar lañ ci jublu woon wa rahmatullah yéen mbokki taalibe yëpp ñu leen di nuyu di leen siyaare di jox ñëpp seen wàccuwaay waaw ah, ginnaaw bu ñaanale sëñ Sidi Mba sëñ Sidi Mbacke mu yàgg fi lool ànd ko wér di ñaanal Cheikh Moustapha Abdou Lahad mu yàgg fi lool te ànd ak wér képp di di waajal bis boo xamante ni nag di bisub Cheikh Abdou Lahad Mbacke di suñu yaakaar tey ak ëllëg amuñu ku dul Cheikh Abdou di waajal bis boo xamante ni ñu ngi koy dëgmal jëm ci talaata bi ñu jëm waaw képp koo xamante ni nag yaa ngi fii ci Amérique latine bi rawatina Argentine di daayira ak ku mën a doon ñu ngi la ciy woo. Euh, di la ñaanal suñ borom defal la jàmm ak tawféex ba ñëpp fekkee bis bi ñu ànd ko liggéeyal Cheikh Abdou Lahad ba lépp loo xamante ni nit dina ko fi ci euh, ci loo bëgg suñ borom defal la ko comme ni nga ko bëggee ci barke Cheikh Abdou Lahad asalaamaaleykum bismillahi rahmaani rahim auzu billahi mina shaytaani rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki julli yéen mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar bu baax seen tur ak seen sant ginnaaw bi ñu ñaanale seen Sidi Moxtaar Mbàkke mu yàgg fi lool wér fas yéene liggéeyal seen Tuubaa ni mu ko bëggee di siyaar seen Sidi Mbàkke xalifatu Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke suñu borom yàggal ko fi loolu guddal faram di siyaar mboolem julli yi fi nekk yëpp ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi nuyu suñu jëwriñ di ab Ahad Ndiaye mi xamante ni moo fi jëwriñ taxawul fi taxawul fi taxawaayu Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke fii si Tuubaa Argentine ñuy waajal bis bu màgg di bis boo xamante nii Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke la muy yaakaar yi tey mu suñu yaakaar tey ak joo xamante nii ameel nag ameel nga ko jukkal Cheikh Abdou Lahad Mbacké rawatina murid yi ba tax na kon ñu ngi si woo ñëpp mbooleem jullit yi ba ñu jullit yi wax nga ñëpp murid yi tiyaan yi laayeen yi xaadir yi kenn muy talaata talaata bi ñu jëm nii ñu ko woote si otel Bawol incha allah rabbi bàyyun kenn nag di ñaanal suñu borom di ñaan suñu borom yóbbu ni si ak jàmm nu fekke ko sa tal si bàkk Cheikh Abdou Lahad ginnaaw bu ñu jógee foofu ñu ngi nuyu suñu jëwriñ fii ci Argentine muy sëriñ Yaquba Guèye mi xam ni moo fi taxawal sëñ Tuubaa fii si dëkk bi di ko ñaar suñu boom yàggal ko fi lool wéral ko di seet tamit sëñ Sidi sëñ Cheikh sëñ sëñ Cheikh Mati Lay ni moo fi sëriñ Tuubaa moom itam ni ngi koy nuyu ko bi muy bis bu Seex Laxan Mbàkke bàyyuñ kenn daal bis la boo xam te ñun ñëpp a ko bokk ñun ñëpp bàyyuñ kenn ku lim ñu si woo ñëpp ñu ngi si yàlla yóbbu jam yóbbu ak jàmm ci bak Seex Laxan Mbàkke mu tombeek le 18 bii ni jëm ni di tombeek talaata incha allah rabbi sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim raditu billahi rabban wa bi islaami diinan wa bi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiyan wa rasulan mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal sëriñ tubaa seex sidil muxtaar mu yàgg fi lool te ànd ak ak wér naka noonu di ko ñaanal sëriñ seex jëmb faal mu yàgg fi lool te ànd ak ak wér di ko ñaanal mbooleem seexi Serigne Touba yi ñu yàgg fi lool te ànd ak ak wér. di jiital nag ci nuyoo boobu ak ziar boobu euh, sunu bunt ci kër sëñ Abdoul Ahad muy Serigne Sidi Mbacke Abdoul Ahad mi nga xamante ni bii ne moo fi toog tey jataayam Serigne Abdoul Ahad di ko ñaanal mu yàgg fi lool ànd ak wér yàgg ànd ak rakkam yàgg ko ànd ak nun nu yàgg a taxawu liggéeyub Cheikh Abdoul Ahad bi ni nga xamante ni bii ne noonu lañ ko bëggee mu mel ni kon. li nga xamante ni bii ne moom la mbokki taalibe yi wax rek ni ko wolof di waxee ku wol mburu tuddab dëkk mhm. te yaakaar naa ne tey jii kan moo xewle sunu jàmbaar ja mooy Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad mhm. xam naa du fi gudd lool ngir nuy mën a wax ci moom waaye wax ci Serigne Abdoul Ahad moom daanaka yomb na yombul ndax borom dund gu fees ga dell ga nga xamante ni bii ne moo matale jamonoom mhm. deman ba yegg ci ku xam sax tuuti ji histoire Cheikh Abdoul Ahad di nga xam ne bu masaani asalaamualeykum wa rahmatullah lu doon ndox day taxaw moo xam murit tiijaan xaadir laayeen kenn ku ci nekk joxan ko ab cër nu daje fii nag tey jii ci Touba Argentine yàlla sunu borom dogal nu daje fi euh, njaboot ak Cheikh Abdoul Ahad gi ak soppey Cheikh Abdoul Ahad mboole mu murid yeeg yëpp rek ñu fas yéene taxawal bis boo xamante ni bii ne bisab Sëñ Abdoul Ahad lay doon mu war doon kañ le 18 ci weeru tubaab war a tombeeg ñaar fukki fan ak ñett ci weeru wolof ñu fas yéene koo amale muy talaata bii di ñëw ci lay tombeel bu neexee yàlla fee ca hôtel Bawen ñu ngi ci woo Euh, ñëpp ñi nga xamante ni bii ni ay jullit lañu moo xam murit moo xam tiijaan moo xam laayeen moo xam kum man doon rek ñu ñu ngi la ciy woo di la ko yëgal di jiital it ci loolu jëwriñ yi euh, dëkk bi ci mu fi mu nga xam ne moo fi toog tey jii jotaayab tubaa Touba muy Serigne Yankhoba Guèye di ko ñaanal yal na fi yàgg lool te ànd ak ak wér ak mboolem ñun ñu topp ci ginnaawam ba li ñu yéene liggéeyal Serigne Touba yal nañu yàlla kattanal ban mën koo liggéey kon yaakaar naa ne ku tudd Serigne Yankhoba rek da ngay daal di bëgg ñëpp dañuy daal di tàbbi ca biir maanaam liggéey boobu bisab Cheikh Abdoul Ahad boobu bu nu jàpp rek ne maanaam waa kër Sëñ Abdou laat wala daayira Sëñ Abdou Lahad ñoo koy taxawal ñoo ngi ciy woo ñëpp di xamle ne daayira Sëñ Abdou laat ñoom dañoo nekk ca bopp ba rek waaye dara loo xamante ne bii ne maanaam war nañ ko mën a yëkkati te ànduñu ko mbokki taalibe amul mm-hmm. kon ku dégg suñu wax ji ak suñu kàddu rek jàppal ne moom mooy sa woote woote ñu invitation ndax bu ñu nee invitation rek day mel ni nun danoo moom bis bi di ci invité ñi ci des waaye bis bi ne ñëpp jàpp kenn ku ci nekk moo ko moom bu jagee yoonu murit wépp la jagal waaye bu ci dara jagadee nan jàpp ne maanaam tim ni képp ku di julli rek yow euh, am nga faay kon loolu ñun ñëpp rek ñu bokk ci jàppandoo programme baat na nga xamante ni bii ne noonu lañ ko fa séenee tërale bu soobee yàlla ndax ku tudd sëñ Abdou Lahad tudd alxuraan loola jarut nu ciy sori ndax firnde ji mooy kenn ku ci nekk moom na ko daan waxee muy Cheikh Abdou ndax nee na boo daa mas booy liggéey di xëy ak maanaam mën ngaa defee ne kenn ngay xëyal wala kenn ngay gontal waaye nag bis boo demee ba nga xam ne suñu borom war na laa fay day wax wëleef la mi ngi doonu jël ko kon loola feeñ na moom tey ndax la nga xam ne moom la liggéeyan muy alxuraan ak xasaayiti sëñ Tubaa yi kenn ku ne xam na ne fee mu tëdd tey jii de jëmmi sëriñ Tubaa ji rek a fa jaadoon ndax alxuraan war ko lépp wër ko xasidaay Serigne Touba ak na mu selle kon liggéey boobee nga xamante ni bii ne moom la liggéeyan moo daan waat tey jii ci kawam kon nun ñëpp rek loolu daanaka dafa war a defaat ci nun jom war a defaat ci nun ngóor a ne xam ne maanaam moom waneen na yoon wa fam nga xamante ni bii ne fa la tollan bay na aw sasam kon nun ñi nga xamante ni bii ne noo koy liggéeyal képp ku nuy tudd di tudd Serigne Abdou Lahad daal ni ma leen koy waxee toujours rek loo xam ne diggante jàppale ak bàyyi kenn la faa seen jàpp rek nga war a def waaye diggante jàpp ak bàyyi moom ku ñuy tuddi seen tudd seen ab laaj léegi waroo faa jege kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bëggunoo guddal kàddu yi dañu leen di duggal rek mooy programme bi bu soobee yàlla fas nañ yéene talaata ji bu ñu xëyee à partir de 9h allah ci la ñuy commencé alxuraan ji commencé ci aussi bernde yi ndax képp ku ne fàttaliku ne bernde fàttaliku géet ñu fàttali ci ne xam le ne maanaam ñi ngi màggal bis bi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad ci la gane woon àdduna maanaam bis boobu moom la ñuy màggal mhm. bu nu xëyee dinañ dem ci alxuraan ji nekk ci alxuraan bi ba nga xam ne waxtaw euh, midi ineer ñu joxe xéewal yi bu ñu ko joxee dugg ci njàngam rajas mi ba julli waxtu julli jot ñu julli bu ñu ba nga xam ne julli nañ tàkkusaan ba pare kuréel yi door a commencé ñu jëm ak moom nag guddi ñoo ngi leen di woo nag di leen ñaan képp koo xamante ni bii ne mën nga ko li laay war a suuli yi nga teel a teew ndax nu man koo def ci sunna ak ci Pastef wëlbatiku delluwaat ci yite yi ndax kenn ku ne xam na ne fii du Sénégal te temps bi maanaam seer na seeraay goo xamante ni bii ne maanaam toog di ko ñàkk ci dara jaru ko kon ñun ñëpp rek ñu teel faa teew bu soobee yàlla maanaam teel a def Pastef ji ak farata yi maanaam wëlbatikuwaat delluwaat ci yite bu soobee yàlla xam naa kon dañuy bañ mu gudd noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo ñëpp nag ca bis boobee di leen wax ne képp koo xamante ni bii ne ñëw nga ca wala nga bëggan caa ñëw wala aajo joo xamante ni bii ne am nga ko yàlla mi nga xam ne moo mën a faji aaj daal yàlla nañu fajal sunu aajo saa dund bàcc na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala taalibe yi ñoo ko déggandoo ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne sëriñ Abdoulahad Ndiaye yëkkati na ko ci kanamu mbooloo mi di jëwruñu sëriñ Abdoulahad Mbacke fii ci Touba Argentine kon nag mbokk yi bés baa ngi noonu nekk le 18 juillet di bésub talaata bi nga xam ne moom la ñu dëgmal sëriñ Abdoulahad Ndiaye nee na mi ngi ciy woo ki nga xam mboolem képp kuy Baay Faal fii ci réew mi a ah, ña nga la cay woo ak ñi nga xamante ne nii mooy soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi bu ñu tuddee jëwriñ jë muy soxna Safi Thiam tudd nañ ñëpp kon du ñu def lu dul di leen jaajëfal di leen wax ne bës baa ngoog seen bës la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu biir Tuubaa tànkam dootu fa jaar sellal na alxuraan mbégum Seex Bamba yàllaaw génne na seytaane biiru tuuba tànkam dootu fa jaar sellal na alxuraan mbégum Bamba yàllaaw